senegal a axlu làmb nekk ci tiis gannaaw génnu àdduna Gaston Mbengue ci turam dëgg saalif amoon juróom-ñaar fukki at ak ñett cosaanoo ca Lougaloo promoteur bu mag bi dem na gannaaw feebar ba ko tëraloon lu yàgg ay at mu nekkoon France da faju ba dellu si fii ci ndakaaru turu Gaston lëkkaloo woon bu baax ak làmb lim ca def moo bëre diiru lu ëpp fanweeri at yem ca nekk tëgg ci komba yu bare wone ci mbër yu bare def ci alal bu takku fexe ba cachet yi yegg ci lu toll téeméeri million ax lu mu métti métti mosul bàyyi ba mu tawatee dafa jële ngay yi jébbal ko kii di doomam màkkaan Gaston nekkoon ñitu ñëpp di fàttali taxawaayam yemuloon ci làmb rekk ndax mu ngi woon ci football bi nekkit ci politique bi di ko jaale Sénégal yëpp di ñaan suuf woyof ca kawam te borom bi xaare ko aljana